asalaamaaleykum internet enquête 221 ñu ngi leen di nuyu ko ci nekk sa tur ak sa sant di leen dalal ci seen rubrique bu bees bii nga xam ne fas nañ ñu ko amal ay bés yu ne ñu tuddee ko enquête sport enquête sport dafa bëgg di dellu si ci li nga xam ne nag moom a actualité sportive bi waate yenn saa tamit xool benn dossier boo xam ne war na leen a intéressé taxaw def ci jàngat te ji nag dañ ko fas yéene ubbee feuilleton bi nga xam ne ni. ñu ngi koy laam-laamee di ko ruumanaat di ko waxtaan ay at ngi nii muy ndax gone Sénégal gi nekk ci Liverpool di Sadio Mané dana jóge Liverpool dem fii nga xam ne nag moom mooy Real de Madrid dossier boobu nag feuilleton boobu nag nga xam ne at bu ne ñu dégg ci ay rumeur li ñu bëgg indi ay yu bees lan moo ci bees lu ci bees mooy gone bambale gi de. waa Royal nee nañu ñu ngi teg ci taabal bi cent soixante millions d'euros cent soixante millions d'euros pour Liverpool bàyyi mu dem jouer ji foofu nga xam ne nag moom mooy Real de Madrid muy xaas bu takku boo xamee ni moom la dirigeant merengue yi bëgg jëndee. doomu Sénégal bi ndax Liverpool dana nangoom du nangu li ci kanam rawi di wante li ci mën a am mooy xam nañu daal waa Real ñoom pare nañu ñu ngi def seen kentu lay kàttan ba nangu gone Bambali gi ci fii nga xam ne nag moom mooy ah Liverpool loolu nag du bees ndax xam nañu cofeel ak bëggeel gi nga xam ne. entraîneur Real Madrid Zinedine Zidane am na ko ci Sadio Mané ba mu ñëwee ba tey ba mu dellusiwaatee ba tey gannaaw ba ñu dajee ci seen final ba nga xam ne ñoom ñoo gañe woon Liverpool boobu ba léegi Zidane mi ngi dugal tànk dugal loxo ngir doomu Sénégal bi fekk si ko ci foofu nga xam ne moom mooy Real de Madrid te xam ngeen ni Real doxatul dox boobu ba Cristiano Ronaldo demee ba tey. boo xoolee ren sax dafay alterner le bon et le moins le moins bon naam mi ngi ci podium bi ba tey waaye xam ngeen ni amul régularité ci li muy def bañ nañ ko ba sax Champions League ci huitième de finale aller yi Manchester City da koo fekk dóor ko ci muy loo xam ne fu mu toll nii mu nekk en position défavorable pour mun a qualifier li nga xam ne nag moom mooy euh, quart de finale kon dañoo fas yéene ñoom defaraat seen équipe ci defaraat boobu nag. Zidane moom misé na trop ci xale wu Bambali bi cent soixante million la ñu teg ci table bi Liverpool dara nangoom du nangu dina loolu dinañ ci xam wante xam ngeen ni Sadio gagné na Champions League ak Liverpool gagné na maanaam coupe du monde des clubs ak Liverpool euh, mi gi waaj a gagné championnat bi bu ñu ko arrêté wul ndax feebar bu bon bi lépp loo xam ne bu football la waroon da ko gañe fa Angleterre rek defe naa ni Sadio gañe na ko wala koy waaj a léegi sax buy laaj mooy yéen lañ koy laaj mbokk internet yi Sadio dafa war a des Liverpool wala dafa war a dem Real de Madrid lan mooy ëllëgu Sadio Mané partira partira pas mooy laaj bi jërë ngeen jëf ba beneen yoon.